li moom xaw ma lan la doon def tey je ne sais pas waaw waaw waaw xale d'indiscipline léegi léegi mais xoolal ma lii xoolal ma camion fu mu dugg dund gu neex day ànd ak xol bu feex yaram wi di feex xol bi di feex ngir nga mën a dund taw feex loolu lépp nag soo ko bëggee da ngay seeti sëriñ seex borom taw feex kon nag yow mi bëgg seet sa yaram ak yi nga ciy weyaale ciy jàngoro ak yi jafe-jafe mbaa nga bëgg a seet say mbir projet yi ngay tàmbali di laam-laamee dina baax wala du baax yoon wi ngay waaj ndaw si wala waa ji ngay bëgganteel di am xel ñaar ci seen digganteel ànd naam àndul wala ndax seeni wërsëg dëppoo na boo jokkoo ak sëriñ seex taw feex dina la ci gindi xamal la fi ngay teg sa tànk te li ci gën neex nag mooy foo mën a nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew jokkool ak moom ci téléphone mu seetal la wax la li nekk ci yow sëriñ seex tawfeex yemul foofu waaye indi na leen jaaro bu bëri kéemaan bayree ngi ci ubbikoo ngi ci ku ni bayree nag ni cat ak làmmeñ ndax ku ñu xam fa nga jëm doo yeeg kon nag yow mi cat sonal say jafe-jafe bari loo yaakaar mu tas loo yor du toog ci sa loxo demal nga seeti sëriñ seex borom tawfeex yemul foofu waaye indil na leen garab gu mucc ayib te baax ci li jaaxal ñépp muy ndoxum siti bi nëpp wala bi di saafara hémorroïde interne wala externe waaye efficace lool ci faiblesse sexuelle maanaam néew kaxtan